يا أبا القاسم الذي دني يخشاني من عليه مدخل وسناء من علوم التي عليك من الله سنيرنن بلا كاتب لا عالم لا كيف ترقى رقيرك الأنبياء يا سماء عن ما تولات عسماء mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan télévision bu mag bi di Al Moukhtar TV dellusiwaat nañ ci seen plateau bi seen émission bu mag bi nga xam ne mooy gàmmu démb ak gàmmu tey ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax tey di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex di leen ñaanal sutura ci barke yonent bi alayhi salaatu ci weeru tedd wi nga xam ne mooy weeru gàmm nga xam ni dugg nañ ci ba noppi ñu ñaan ci yàlla suñu réew mi yàlla fi yàlla saxal jàmm ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag di ñaanal xalif généraux yi ci réew mi yëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex di leen ñaanal sutura ci barke yonent bi alayhi salaatu di ñaan ci yàlla suñu réew mi fi yàlla saxal jàmm barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam émission baa ngi noonu tey nag ñu ñëw kër gu mag kër gi ñu ñëw mooy kër Cheikh Ahmed Diop Cheikh Ahmed Diop ku ko xam xam ne waliyu Cheikh na Cheikh Saad bu la boo xam ni liggéeyal na Cheikh na Cheikh Saad bu liggéey bu rëy bu wër àdduna tey ñu dikk ci lenn ci njabootam ñu fekk si sunu wëyjur maam Sayer Diop mi nga xam ne mooy doomu Cheikh Saad bu Diop di doomu Cheikh Ahmed Diop tey moom la ñu fekk si fii ci këram war a waxtaan ak moom ci kër gi waaye war a waxtaan ak moom itam ci gàmm gi nga xam ne jub nañ ci muy bu ci kanam tuuti rek incha gàmm gi ñëw na ñu war a waxtaan ak moom nag ci ni ñu daan gàmmoo fële seen penc mu tedd ma waaye fële ca pencum Cheikh Maxta euh, Cheikh Saad bu Jóob ba waaye fële ca pencum Cheikh Ahmad Jóob ba na nga xam ni nako la ñu nañ gàmmoo ca maam ya ba fi ñu tollu tey ni nga xam ne noonu rek lañu daan doxalee ci gàmm lii la ñu bëgg waxtaanee moo waral tey ñu déplacé wu ñëw fii ci këram war a waxtaan ak moom xam naa dañu koy bàyyee kàddu gi sëriñ bi nuyoo su noppee ñu doog a dellu si ci question yi incha allah sëriñ bi noo ngi lay nuyu di la ziyaare di la wàcc sa wàccuwaay bu baax Jóob وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينوى مختار تي في روتنا وأدنى يب نيجي كيب كين نكون نكتين تروب أكسنتم دنيان سنيو بام سبحانه وتعالى سما كادو فيك نيب تي جام دنيان سنيو بام سبحانه وتعالى نيجل أدير بني يالنك يالواتي سنيو سنغبوتي دبشيه محمد جوب defal ko ña fa fekk ak ña fay fekk ñëpp ëllëg di ñaanal suñu sang bi Cheikh Talib bi di doomu Cheikh Saad bu Diop di doomu Cheikh Mouhamad Diop gudd fan ak wér yàlla na ko yàlla defal defal ko njabootam yëpp sama nee njaboot gi nag mhm. njabootu ruur dugg na njabootu gañe dugg na mhm. waaye na di yëkkati nuyoo bu kawe bu mhm. tedd di ko dox njabootu Cheikh na Cheikh Saad bu ñi nga xam ne lii lépp ñoo ko waral nuyoo ba nga xam ni suñu maam Cheikh Mouhamad Diop nii woon na ko seen mam Cheikh na Cheikh Saad Bou daf na ko waxoon ne ila cheikhi man ataahu mustanidan aw saailan xaajahu aw xaaifan waliha yusilhu rabban wa yunfi faxro bihim wa yuminu dahra yahwi bi jaziluha sadu suhudi wa saadu diini saadul abi al amri naahu maxrufa shubuha nuyoo boobu la suñu maam Cheikh na Cheikh Mouhamed Diop nuyoo woon Cheikh na Cheikh Saad ñu ngi koy nuyoo képp lu ahlul bayti nekk rek barakallah ñu ngi e, e, wàcce suñu bopp mhm. di fon sa loxo di la jox di la di màggal mhm. di nuyu nag e, sama doom sama sëriñ muy Cheikh Matar Diop di xalif Cheikh Matar moom mi nga xam ne moo leen fi yabar mhm. waaye ci ndigal Cheikh Talib ya sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp di defar seen teewaay fii salaamaaleykum wa rahmatullah barakallaahu sëriñ bi Diop nuyoo bi matale na ñu ñaan ci yàlla rek yàlla dolli xalifa bi jàmm ndax euh, kër gu nekk ka fa toog di xalifa ba mboolem ku di taalibe da ko war a ñaanal gudd fan ak wér ndax ñoo toog toogaayu maam ya waaye ñoo toog toogaayu baay ya kon toogaay yu sell yu jekk yooyu yal na yàlla dolli ci barke barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ bi bu ñu dellusee ci waxtaanee tuuti rek ci Cheikh Ahmad Diop buñ ci amee lenn ci bunt buñ ci mën a waxtaanee rek doog ñëw ci gàmm ji Cheikh Ahmad Diop diggante ma Cheikh Cheikh Saad bu ci wàllu gisee boo ci mën a delluseel tuuti rek dana dana mën a laytaay jataay bi bisimilahi rahmaani rahim hmm. ñu ngi rafetlu laaj bi bu baax a baax waaye laataa ñuy ñëw ci Cheikh ma Diop giseem ak Cheikh na Cheikh Saad bu hmm. dañuy ñëw ci Cheikh ma Diop fan la gane àdduna ba pare ok maam Cheikh ma Diop mi ngi gane àdduna dëkk bu ñuy wax Masar Diop Masar Diop Masar mi ngi nekk ci yoonu sagata bi diggante Kébémer ak euh, sagata hmm. waajuram bu góor mi ngi tudd Sayid jóob ñu koy wax sayar jama waajuram bu jigéen tudd Ramatu Góora Njaay foofu la maam Cheikh gane àdduna fa la fa la daara fa la aw daara fa la ak téere xam-xam yëpp ba mokkal ñëw wut si ndar ndax li ko indi woon ndar moom mooy bët yu doon metti mu ñëw di ko faj si waaye bi mu ñëwee ndar mi ngi daal ci mbokkam bu ñëw ëmb Njaay Maabeey ci moom la nekkoon mu nekk mbokk deretam maam Cheikh nekk fa waaye doon yeka yeesal eh, eh, xam-xamam mhm. ci góor gu ñuy wax Alaaji Jaaxa Siise mhm, Alaaji Alaaji Jaaxa Siise bu mag moomu mhm. ma nga gi ma nga génn àdduna Màkka Alaaji Jaaxa Siise laataa muy dem Màkka laataa muy dem màkk nag dafa woo njaboot gi ba ñu ñëw waaw ah, bu njëkk soo doon tukki daanaka noonu nga daan def say soxna mu dénk njaboot gi maam Cheikh ah, bi mu génnee àdduna ca Màkka maam Cheikh doon soxnaam suñuy wax soxna Xadija dañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti waaye googu ñu wax Cheikh Issa Aw mhm. moo boyet maam Cheikh wa Diop ak Cheikh na Cheikh Saad Bou Cheikh Issa Aw Cheikh Issa Aw ci ndar la nekkoon mbokkam la moom it di mbokk ala euh, di mbokk maam Cheikh ma Diop di mbokk Ama Ndiaye Baabey mhm. moo ko boyee Cheikh na Cheikh Saad Bou mhm. boobu tamit maam Cheikh nag doomu ndar yëpp nee nañ ko Cheikh ma Diop loowu ci ci naar bi ñëpp xam ne yow yaa fi sut ci wàllu xam-xam euh, loo fi bàyyi xam-xam di ci naar bi waaye comme euh, ni nga koy ni ñu koy léebee mhm. soo bëggee tukki amee sa passeport mhm. suñu la deful cachet visa doo dem doo dem dëgg la boobu Cheikh na Cheikh Sall moo amoon cachet yi a dem léegi mu yegg la ma ci yàlla lii moo ko yóbbu Cheikh na Cheikh Sall waaye dama woon pour jàng mhm. dama woon pour leneen waaye kii ko yeggale ci yàlla loolu ma wut barakallahu moom mu demee tamit Cheikh na jëflante moom ci loolu macha allah kon li muy feeñal daal mooy li jiitu moom muy dem ci Cheikh na Cheikh Sall bu moom fekkoon mu nekk xaafisul Quran bu daan jàngale xam-xam boo xam ni wattu woon na téere xam-xam yëpp waaye am lum ci doon motti li yàlla dogal kon bunt bi nga xam ni fa la war a dugg Cheikhna Cheikh Saad moo ko fa mën a jàllale mhm. lii moo ne kon mission bi digganteem ak waaye ci wàllu dundam binaaw bi yàlla dogalee mu gisee Cheikhna Cheikh Saad xew-xew ya naka la dem waaw gannaaw bi nga xam ni euh, dem na nim ci ndaar bu gisee Cheikhna Cheikh Saad bu mhm. mu jàll dem gànnaar fekk Cheikhna Cheikh Saad mhm. euh, bi mu fa nekkee tamit tarbiyaam moom mooy xëlwatu Mm-hmm. cheikh sata du ko jox tur yàlla mu dugg xalwatu su jeexee mu génnaat mu joxaat ko beneen lam fa nekk yëpp du masala du leneen loo xam ne cheikh sata bi jëflante ak moom du la tur yàlla boobu bi mu noppee tamit cheikh sata bu woo ko ndëkkat jox ko ndigal ne ko bis naka tey mm-hmm. soo delloo sa kër jox naa la ndigal nga joxe ñaari werd werd xaadiriya ak werd tijaaniya 1902 mm-hmm. cheikh sata bi dafa ko taxdim boobu xam naa suñ ci yàlla après bala ngeen dem dinaa leen way kii dinaa leen wan lettre bi sama ginnaaw mm-hmm. ak li ko ak Cheikh na Cheikh ko lii na du ko jox keneen ku koo xam ni amul ñaari xam-xam yii mm-hmm. xam-xamu aqiqa ak xam-xamu sharia mu jébal ko Cheikh na maam Cheikh Ma Diop maam Cheikh Ma Diop dellu siwaat nag fii nekk ak njabootam mm-hmm. di jàngale ak di jàngale xam-xam di tarbiya doomu aadama yi ndax këll goo xam ni li nga xam mooy jàng ak jàngale kese loolu la ñu maam yi bàyyi loon te moom tamit ci loolu nekkoon macha allah kon bi mu ñëwee dafa delluwaat masar wala lan moo indi doxam ba dellusiwaat mbir ngumba googu waaw li ko indi ngumba man lu lu lu lu neex a dégg la mhm. ndax euh, soo amee sëriñ dangay ngay wëy ci ndigalam mhm. maam Cheikh Madiou dëkkuñu dëkkul ngumba mhm. ñun dëkkuñu ngumba ñu ngi dëkk dëkk bu ñëw Masar Diop Masar waaye Cheikh na Cheikh Saad bu bi bi Cheikh Adrame génnee àdduna ci ngumba moo wax maam Cheikh Madiou mu ñëw toogal ko ngumba wattul ko hmm. bàmmeel Cheikh Dramé boobu hmm. ñun ngu ma wut fa indi moo fa bàyyee lu ñu fa indi bàmmeel Cheikh ma Sofa moo Cheikh ma sama bàmmeel doom ne ko hmm. bis fekkee ko dinaa ñaan suñuy boom ci kàttanam mu def ci moom ruu mu ko ni mu denc ko maam Cheikh daal ñu bis nga ma toog waaw sanc kër waaye di doon jaabante diggante ndar ndax am na ndar kër ndar mbasar ak ngumba ñee ko doon jaabante waaye suñu nekk ngumba bu bàyyi ma ne war xeet wala barakallahu dégg nga ni ko sëriñ bi nettalee ci wax dëgg yàlla euh, ci dund maam Cheikh Ahmad Diop ci gis nga ko ci bi mu gisee ak Cheikh na si Sadbu waaye ci ndigal li nga xam ne delloosiwaat na ko ngumba tey nga xam ne wattu bàmmeelu Cheikh Adrame moo ko indiwaat ngumba ba tey yàlla dogal li xew xew ca kër gu tedd googu di Cheikh kër Cheikh Ahmad Diop bu ñu dellusee ci kër gi euh, ci ni yàlla dogalee mu dellu si nekk ci kër gi ngir ndigalul Cheikh na Cheikh Saad bi waaye base bi naka la doon dundee ba tey kër gi mel ni mu mel tey ci taalibe yeeg ci yaatal geeg ci defar defar rafetal tariqa bi ba am ci cër boo xam ne tey ji àdduna bépp da xam nan ko naka la doon dundee ci biir Ngouba bi mu ñibbisee alhamdulilahi rabbil alamin comme ni ma ko waxee rek comme que moom da daan jaabante diggante ndar mhm. parce ndar la daara ja nekkoon ngumba asañ ci fa kër mhm. waaye ngumba daara amu fa woon mhm. waaye daaraam ji gën a mag ci daara yi mhm. mu nekkoon diggante masar ak njigis ak njigis waaw te ñi nga xam ne ñoom la jot jot a tarbiya ndax masar boobu ña nga ca diine euh, ña ngay jàng di jàng xam-xam waaye njigis bi nga xam ni daf leen tuubal dugal leen ci diine foofu la tarbiyaam nekkoon nag li ko boole njigis nag Cheikhna Cheikh Saad bu daf ko wax euh, euh, bi 1902 bi mu jógee Cheikhna Cheikh Saad bu dafa am miraas boo xam ni. Mhm. dafa dëkk bu ñuy wax Cinu Mandiaga mi ngi nekk ci ginnaaw Ndiaye Coro ñuy dem ci tali Dakar xam nañ ko mu am miraas boo xam ne miraas bu të. mu am góor gi ñuy wax Cheikh Pathé Barka Diop. Mhm. bi mu demee Cinu Mandiaga mi leen di am na sama sëñ bu nekk ndar waxtu fi ñëwee su defee miraas bi ragal naa kenn doo ko laalaat. boobu magu magu ceddo yi diggante magu njigis yi euh, dañu amoon kàddu waxtaan nañu seen biir ba tënk seen kàddu ne ki fi njëkk a ñëw mm-hmm. dañu jaayante yow bàyyi démb fekk si la tey mm-hmm. ñu ne ñu ne sëñ Tuubaa bi doo ko feeñ jamono su ñëwee ñu bàyyi lañu nekkoon fekk si ko fekk si ko ñu ne Alaaji Maalik nga xam ne jege nañu Tiwaawan su fi ñëwee ñu bàyyi démb fekk fekk si ko wala Cheikh na Cheikh Saad bu mu sëtu Yonent bi su fi ñëwee ñu bàyyi démb fekk boobu xamuñu maam kuy maam Cheikh ma Jóob mm-hmm. waaye suñu borom ci kattanam ak ci eh, mbaaxam. Mhm. daanaka mën naa Cheikh na Cheikh Saad Bou ko branché foofu rek. xeetu wallaahi. keroog bi Cheikh Paate Barka waxee ak maam Cheikh Mbodjo waxat waa Ciinu maa njaga maam Cheikh ñëw fi bisu altine wàcc wàcc jël otoraay wàcc ci gaaru kel ñu takkal ko fas mu dem Ciinu maa njaga li mhm. mu defee mirage bi ba léegi fi ñuy waxat yéen mirage ba kenn wax wax wax lu ci jëm. allahu akbar. ki la wax na day delluwaan Ndar góor góor gi Paate Barka ne ko kaa ñu dem ñi nga fanaan ba suba. Mhm. lii mooy dugg si maam bi ñu gis. biñ ko séenee muy ñëw mag ñi nee mi ngi sol grand bu mbay luus bu ñuul wekkoo benn gër ba gër ba naar yooyu da mhm. wekkoo woon biñ ko séenee muy ñëw ah kanaa kii mooy sang siif bi ñu doon wax kon wallaahi ki dañuy jaayanteen moom nag ah lii awxanta mi ne zulumaati ila nuur jóg génn ci jóge ci lëndëm ñëw ci leer mhm. mu defar mu jaayanteen ñoom ci loolu tuubal leen sopp seen i tur Ah, jox leen ay tu ay ay tu ay tu ci lu jullit mm-hmm. lii mooy eh, dugg maam Cheikh ci biir gis waaye nag mu nekk ñoom di leen tarbiya mm-hmm. waaw xam nga deru xar mm-hmm. xar soo ko soo ko tëree ba fees ko pare der bi da koy wulli soo ko mënee soo ko bëggee jëfandikoo noonu la defal magu njigis yi waaw par génération nag génération par génération waaye moom bi mu leen tuuralee pare nag li ci des nag doom jee ko mottali. Mhm. muy Cheikh Sadou naa dañ ci dellu si waat. incha allah <laughs> barakallaahu gis nga ko dund gaa ngi noonu mag ñaa ngi noonu ni ñu daan liggéeyee ak taxawaay bi nga xam ne amoon nañ ko waaye leer yi nga xam ne da daan bàyyee ko ci ñoom ba fu nu dugg lu ñu fa bëgg a tabax tabax ko tabax bu rafet bi weesuwut fekk ñoo xam ni ay nit ñu tuub lañ ñu xamul woon diine lañ nga def dugaleen ci diine waaye pas-pas boobu nag la mag ñi yoroon di ko rafetal tey ba yegg si tey jii ci fi mu yegg si tey euh, bu ñu dellusee rek sëriñ bi ci gàmm maam Cheikh Ahmad Diop lu ko jotale ci gàmm ak man at nga jàpp takk ne ci la commencé woon gàmm ba ci loolu it nga mën ñoo diggal naka lañ daan gàmmoo ñoom itam. alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah alhamdulilah rabil alamin euh, gàmmu kër Cheikh Mouhamad Diop. Mhm. mi nga tàmbalee le 13 mars 1898.

muy Cheikh Saad bu Diop. Cheikh Saad bu Diop. la tawlu at mam Cheikh Amba Diop. boobu suñu mam Cheikh Amba Diop amoon na yene su gisee tawam wala doom bi mi ñëk a am mu ko sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam keroog bi nga xam bobu nak bi mi gëne aduna dafa fekk Cheikh Cheikh Saad bu Ndar. Cheikh Cheikh Saad bu ci momu wote ñet yon ndaw ndaw li yéex ñëw. bi mam Cheikh ñewé fekk na bobu Cheikh Saad dafa bu won dem Kër Mañang Kër ñang mi ngi ci région Louga. loolu la loolu moom mooy mébélu maam Cheikh na Cheikh Saad Bou mhm. bi maam Cheikh ñëwee Cheikh laaj ko lu waral mu yéex a ñëw mu ko kat dama amoon gan dama doon gan mhm. Cheikh na Cheikh Saad ma gën a mi ne gan gu jóge ci yàlla allahu akbar ah Cheikh Saad Bou ne nañu nañu nañu yësal gëléem yi sampaat xayma yi waaw mu indi ma naar bi mu ñëw mu ne ko ana Cheikh na Cheikh mujj ana na mooñ sa doom ne ko dama doon ñaan suñu boom de su ma taawloo ma tudd ko sama maam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Cheikh Saad daal wax mbuubu bi da ko Cheikh ma Diop xoolal boo xool Cheikh Cheikh Saad dafa ànd ak turam waaw ño xanaa xama man sama maam lañu ma tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko alayka aati salaami wa aati tahiyati wa ikram naam samay naa ko Muhammad Saad sallallahu alayhi wa sallam a kay tuddee naa ko Muhammad Saad bu li anna haza u ismu nabi sallallahu alayhi wa sallam kon man nañu ma tuddee sama maam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii moo waral gàmmu maam Cheikh daal ne comme que lii am na nag dinaa ko def ngeen màggale ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant ko yàlla lii moo waral gàmm googu allahu akbar bi nga tàmbalee ci ndar mhm. le 13 mars 1898 mhm. la ko maam Cheikh tàmbalee ci ndar mhm. di ko def di ko def ndax nangu nañu si kase ak audio yi mën a envoyé euh, bi nga xam ne Cheikh Saab Diop def na ko 1980 mi ngi ci wax ne jamono yooyu su gàmmu daan jib si dañu daan dem ci géej gi tibb ci suuf si ñëw sottiwaat ko ci kër gi pour pour defaraat kër gi moom rafet waaw yeesalaat bis bi yëpp nag dañ koy jàng alxuraan <laughs> sant ko yàlla maam Cheikh ni mu daan gàmmoo mooy jàng alxuraan ak tudd tuddee ak sikkatu baatu laa ilaaha illallaah mm-hmm. ci loolu lañu saxoon jamono yooyu tabale yi xewagul mm-hmm. waaw mais noonu lañu ko daan defee ci ndar waaye maam Cheikh di ko def ba mu génn àdduna ñu indi ko fii ci ngumba ngumba la gaañoo waaw ñu denc ko foofu ci biir ci biir ci biir euh, xabru bi mm-hmm. bañ koy denc ci biir xabru bi sax xabru bi ndax boobu euh, Cheikh Cheikh Adramé ul Cheikh Saad boo nga fa. Mhm. Cheikh Mahfou ul Cheikh Cheikh Saad bu. Mhm. Cheikh Sidi Ba ul Cheikh Mahfou. Mhm. Cheikh wul nan ul xutub ñi ngi fa woon. waaye li nga xam ni Cheikh Cheikh Saad waxoon na ko ci maam Cheikh Ma Diop ci ci taxdim yi nga ko bindaloon. Euh, bi Cheikh Pathé Sall moo ko jullee. moo ko moo ko defar. ñaaral ko yàlla waxat bàmmeel yi ñu puus xajal maam Cheikh mu dugg. li mooy waral maam dugg maam Cheikh. ci biir ci biir rek. lii moo waral dugam dugam ci biir foofu euh, bi mu génnee àdduna nag Cheikh bi Bou Diop def naa ko ñaari at ci ndar waaye ba xam ni sama waaju tëdd fii ci ngumba mhm. ma nekk daal dafa gàmmu moo tax ma toxal ko indi ko ngumba lii mooy waral toxalu gàmmu gi ñëw ñëw ñëw ñëw ngumba mhm. waaye gàmmu gi tamit ni ko lañ gàmmoo mhm. soo gee déggee yi di nga xam bu baax góor gi mu ci daan def muy suñu xëyee jàng aw xawaan suñu jàngee aw xawaan tudd baatu laa ilaaha illallah sikar tabala bi bi ñuy jëkk suñu kër. Mhm. nangu naa ci sama benn sama benn baay. Euh, di bokkoon ci nga xam ni ñu jege woon Cheikh Sadou jóob la doon nekk ay nekk nekk ay euh, tànkam ak loxoom. Mhm. ñu ko wax Baye Mayib Diop. Euh, ñu koy gën ko xam ci Mayib Soxna. Mhm. dem naa Massa di ko posé question ci loolu. mais ma ñun de ba ñu njëkkee wut tabala këll bi ñu ngi ko jënd ci Seko Ngumba. benn waaye bu ñu wax Ibnu moo leen ko jaay ñetti fifteen. allahu akbar bi ñuy fooyee tëgale bi indi ko ci góor gi góor gi ne leen ko tëggee allahu waahidun allahu akbar waaw nee laa ilaaha illallah ñu dóor tam ñu dóor benn kalañ tëgg bi noonu naan gàmmoo allahu akbar waaw nee guddi àjjuma nee su ko defee waykat dañuy jaan ni tëggkat yi jaan ni ndax boo miin ñu ko waaye mu saxal lañ ci loolu suñu nee laa ilaaha illallah nga dégg mu ne ding allahu akbar laa ilaaha illallah ding noonu la ko defee mu daan fajar te Cheikh Saabou daan wax ni guddi gàmmu yonent bi su amoon canon da koy dóor màggale ko yéen ba di ko di allahu waaw nee na suñu nee laa ilaaha illallaah li ci yell moo nga dóor karo fu ko mu dellu wax ni su fekkee tamit yàlla dafa doxoon ma nekk ndaw mhm. guddi gaaw mu damay sëmp samp sama ñaari baaraam yëkk samay tànk ngir màggale ko yéen bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon na koo xam ne ku fonkoon nag baatu laa ilaaha illallaah la ilaaha illallaah ndax euh, fa mu ko tegoon mm. su gàmm gi daan dem ba riir ba sikkar bi tar donc gaa ngi daan jóg taxaw di jaayu allahu akbar waaw waaye nag mosul nangu ko ci fo wallahi wallahi li mu xotti ci ay tabale ci biir baas kenn mën la wax limit mu toll ndax amoon amoon na ful la boobu nag moom mhm. waaw su la jegee nga nga nga rax leneen ci tabale bi mhm. daan na ba ci yow jël paaka mu xotti tabale ji waaw fii daan na ci def waaw loolu nag ci loolu la tàggate njabootam mhm. ci loolu lañ yere ba xam ni soo jegee ñu naan euh, si karu démb wala benn galañ dañ koy dëkkal ngumba dëgg la waaw suñu yëkk suñu yëkkee daaju sikka rek ñu ne ah daaj bi daaju ngumba la mm-hmm. ndax loolu lañ ci xamoon lii daal la xam ne Cheikh Sadou Diop tàggat na ci njabootam ci baat boobu tabarakallahu euh, muy lu am solo loo xam ne noonu la mag ñi daan gàmmoo euh, macha allah duñu ci sax dellusiwaat waaye bu nu seetloo rek mm-hmm. euh, ca mag ña nañu doon gàmmoo ak léegi mm-hmm. différence bi nga xam ne am na ci rawatina fi njàng mi toll léegi ak fi tëgg mi toll tey nii nga xam ne nii la xale yi yëkkatee mbir mi yóbbu ko ci dimension boo xam ni bëkkut ak ni nga xam ne loolu la fi mag ñi tegoon ndax tey li doon jaral Cheikh Sadou Diop bu tëgg mi soppeeku ko mu mu mu xotti tabala ja kon dañ caa raxlu ca bokkuloon waaye rax gi léegi dafa ëpp yan taxawaay tey jii la ci kilifa yi war a am ak lan lañ war a sensibiliser nit ñi ñu delluwaat ci la nga xam ne fa la la fi mag ñi bàyyi woon. alhamdulilah ci laaj bi euh, liñ ci leen di sensibiliser rek moom mooy delluwaat démb. na nga xam ni Cheikh na Cheikh Tall Cheikh woon na ko ñoom maam Cheikh Mba Diop mhm. bàyyi leen ñu dem tarbiye seen njaboot ci loolu mhm. loolu rek moo fi wéy ndax jamono moom soppikuy fa mu newoon ma nga fa ba léegi doomu aadama ñoo soppiku ñoo soppeeku waaye fa mu nekkoon ma nga fa ba léegi mhm. waaye na xam ni yow loolu nga nàmp fexeel ba sa njaboot nàmp loolu na nga xam ne noonu ngay doxee fexeel ba sa njaboot doxee noonu sama waajur daana fa di wax ni nit ku nekk war na xam judd sa judd dalee tooñ sa judd da lay tooñ waaw danga nga ci kër goo xam da nga war a jomm lu bëri mhm. ndax lii la sa maam bëggoon lii la sa baay daan def ah, waaye suñu la fekkee ci leneen loo xam ne du naka sulu noonu la ëllëg mën na la te li nga xam ne nag mag ñi bàyyil nañ ñu ko mhm. muy tëgg benn galañ boobu li ñu leen di sensibiliser nag mhm. parce que léegi mënatoo kenn wax lañuy mën ba waaye wax ji day fekk yow nga jiitu ci nga jiitu ci waaw li ngay wax di ko ko di ko conseillé doomu aadama yi day nga jiitu ci ku ñëw fekk la ci ma joxe benn exemple rek ci suñu suñu bu baax ba Cheikh Ahmad Diop mhm. yàlla na ko yàlla dolli leer euh, gàmmu gu mujjee gàmmu ci ngumba mhm. dañuy gàmmu sikkar parce que moom loolu moo ko dundal bu sikkar ba baas bi tar waaye ki sikkar dafa sikkar pare na yëkkati beneen air air olofal mhm. di ci tudd euh, mu kontaan ci loolu nag ci loolu waaye nag mi ne ko beneen yoon su lii amatee nañ yem ci baatu laa ilaha tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax suñu tàntalee yonent bi daal yonent bee ko mu at yàlla waaw waaye man bu ma ci kenn tuddati waaw pour bañ a blessé rek doomu aadama leen li ngeen def rek lépp baax na waaye li bañ a ñoom su fekkee guddi gàmmu daal mhm. laa ilaha illallah tagg yonent bi dafa doy sëkk mhm. loolu nag xam nga kooku jiitu na ci mhm. parce que ci biir baas la la la la koy waxee beneen bi ci ndar ñu def ziar ndar euh, ñu way sikkar ba sikkar bi tàng tëggkat bi soppi soppi tëgg bi ci saa si mu tàng këf micro bi bi mu ko jaamu yàlla at foo àndul mm-hmm. waaw ne bis naka tey ñu bàyyi loolu jaamu yàlla at foo àndul te ñëpp xam nañ ni jaamu yàlla foo am amu ci waaw ñëpp xam nañ loolu kon boog daal euh, li ci li ñu sensibiliser li mel nii bokk na ci média yi mm-hmm. euh, euh, di wër bâche yi mm-hmm. di filmer li xew di ko di ko parce que ñeneen ñeneen ñi koy def tamit ci média lañ ko lañ ko jaarale dëgg la waaw ba xëy na ñoom seen xëy na ñoom ñoo ñu ëpp oral léegi mhm. waaw bee lii baax na ci fexe tamit ba dem tamit euh, mu jàll foo xam ne wala foo jàll waaye ñoo xam rek ni jaamu yàlla ak foo àndul waaw kenn du wax baatu laa ilaha illallah di ci boo di ci tax leneen mhm. lenn moo ci war a ànd muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu daal la ñu mag ñi jàngal mhm. euh, te ci loolu la ñu fas yéene nekk barakallahu dégg ngeen ni ko sëriñ bu waxee ni nga xam ne noonu la mag ñi daan gàmmoo waaye loolu itam euh, dafay dellusiwaat ci jamono tey ñu bari war ci jànge xam ne sëriñ si nga xam ne ñun ñoom la ñu yaakaar ñoom ñooy fondement bi ñooy date bi ñooy lépp ñoom taxawaay bii lañu am rawatina ñi nga xam ne seen maam dañoo bokkoon ci ñi ànd ak Cheikh mooy lii doonoon seen jukko ca wàllu mooy jub jubal doon ay royukaay yaru lool ba boo toogee ñoom ñu gën laa yaru waaye amee ay jukko yoo xam ni loolu la jukkoy sang war a amee kon keneen yaakaar lay war a doon taxawaayam mooy jéem leen a donn ci jukko waaye roy leen ci jukko te donnu leen ci kon taxawaay boobu la ñu amoon tey bu ñu waxee ci wàllu gàmmu tey nga xam ni tey bu gàmmu jotee xel yëpp dem ci ngumba wala seen xel dem ci nguraan ñii seen xel dem ci Mirina Sarr ñii seen xel dem ci sagata muy dëkk yoo xam ne ay baasu xaadir lañ xaadir yëpp nag bu gàmmu jotee ñëpp daw wuti fa kon nañu delloosiwaat ni mag ñi daan gàmmoo ñi nga xam ne ñooy way nañu bàyyi xel xam ne tagg yonent bi salaay salaam zikar tudd yàlla loolu kat jàpp naa ne bu amul bu loolu dul yàlla dara dootul doon yàlla waaye dañoo dem ba soppi ko di ko doxe doxin woo xam ne neexul yàlla neexul yonent bi waaye neexul mag ñi te it mag ñaa ngi fi seeni kàddu nag mënut a joti fépp waaye ñu ngi toog ci seen ruq di ko bañ kon ndaw ñi nga xam ne ñooy tàgg yonent bi ndaw ñi nga xam ne ñooy tëgg tabala yi nañu bàyyiwaat xel xam ne tarixa bi fawul faluwul ndax base ba yaatu na de Cheikh na Cheikh Saad Bou ay mbëri làmb ay mbëri diine la fi la la fi samp te mbëri diine yi fi samp kenn ku nekk ci ñoom sa kër gi nga nekk ñoog nga ba dara du ko yàq kon nag kenn mënu koo yàq dañ ciy yàqoo nanu góorgóorluwaat loolu bàyyi ko xel bu baax a baax bientôt gàmmu gaa ngi nii jëm euh, sëriñ bi tey biir ko Cheikh Ahmed Diop yan woote wala yan digle ngeen xalaat ci gàmm gi ñu jëm ndax bientôt ñu jëm ci guddi yonent bi alayhi salaatu ñu fas yéene ko gàmmoo fële ca ngumba ca kër Cheikh Ahmad Diop nga xam ne taali yëpp dañuy teew naka ngeen bëggee taalibe yi ñëwee ko ak waajale ko guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilahi rabbil alamin ah, di dellu ginnaaw rek ci ci sa biir wax dem na dégg naa ci ci li nga xam ni Cheikh na Cheikh bu samp na leen mbër yi fi samp mhm. te ñoom ñooy am ñoom ñoom ñoom ñooy mbër yooyu nag ñooy ambassadeur Cheikh na Cheikh Saad xeetu ndax goxu Sénégal fu nekk Cheikh Sassane bàyyi na fa benn ambassadeur. Mhm. te président su daan tuy tukki. Mhm. bitim réew ci kër ambassadeur lay wàcc. Mhm. ñoom nañoo ñoo fi nekkoon Cheikh Cheikh Saad bu di di tasaare xaadiriyaa bi fii. ci Sénégal. kon au passage maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. jàpp ne man maa ngi fi teewal ñoom ñëpp nag ndax euh, li ma ko waxee sànq rek euh, bëri na ci ay cheikh yoo xam ne ku ci génn àdduna sa moom cheikh la defal wallaahi jëgg la Diop te loolu la cheikh na cheikh sa defal njabootam wallaahi Diop wallaahi Diop di leen nuyu ñoom ñëpp nag di leen ziar euh, fépp boo xam ne cheikh na cheikh sa teg na fa amaam rek cheikhal <laughs> na sa maam rek jox nañ la sa sa wàccuwaay <laughs> di dellusiwaat tamit ci nga xam ni li nga wax ci gàmm gi ñuy dënmal kan <laughs> naa bañ leen dokkale ci guddi gi bu baax a baax a baax a baax gàmm gi daanaka kàddu démb mhm. maam Cheikh Ma Diop di kàddu Baye Saad bu mhm. di kàddu suñu ba sang ba Cheikh Mama Diop mhm. mooy kaddu Cheikh Talib bi liñ ciy liñ ciy digle at liñ ciy def génnul sunna génnul faata waaw ndax aw xawaan kese lañ la daanaka jaamu yëpp aw xawaan la ak tamit wax ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw kat bu na ci kii. Mhm. sallallahu alayhi wa moo loolu moo indi gàmm. Mhm. te lañ lañ lañ lañ waaye leneen mhm. indi ñu fa. waaw li ñu ci daal moom mooy jàng alxuraan téere yàlla bi. di ko jàng di ko jàng. duñ ko noppal. ak wax ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ku ñëw foofu di nga mën a xam ni kat li nga dégg fii soo demee di nga jéem a roy ci moom. waaw. melokaan yi nga dégg ci yonent bi ndax yàlla mooy wax kat jël leen yonent def ko seen fans <laughs> yàlla kenn lañ joxoñ kenn benn benn fans lañ joxoñ waaw benn fans lañ joxoñ sallallahu alayhi wa sallam xam nga la mooy fans hmm. fans mooy ki nga xam ni da koy koy copier ci lépp hmm. yàlla na joxoñ ne jël leen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi def ko mu nekk seen fans sallallahu wa sallam léegi nag ci biir gàmmu nag ci ngay xamee nag kooku yan comportement la amoon hmm. nu mu daan dundee waaw nu mu ragale woon yàlla nu mu daan jëflante ak doomu aadama yi loolu nag mooy tax soo ñëwee ci gàmm nga mën parce que soo jógee ci gàmm ne gàmm nga neex na ci jëlee woo fa dara mhm. gàmm nga neexul dëgg la dëgg la Diop waaw gàmm bala moo neex dëgg daan mhm. nga tiré ci leçon am la tiré tiré ci leçon mhm. te loolu nag moom depuis maam yi ba léegi loolu moo sax ci kër ga barakallah loolu moo sax ci kër ga kontaan nañu lool ci waxtaan wi eh, tey mën nañ cee jànge lu bare bare bare fa tabarakallahu lii dafa war di faral di baral di am te it itam incha allahu Euh, télévision bi dinañ leen dellusiwaatal ci kër ci Ahmed Diop gën a waxtaane kër gi gën a waxtaane ci Ahmed Diop dundam gën a waxtaane njaboot gi mu fi bàyyi seen taxawaay li leen seen maam bàyyil mission bi fan lañ ko bëgg a jëmee ak lan moo ci devoiru taalibe yi ak taalibe yi ban taxawaay lañ ci war a am loolu yëpp incha allah télévision Al Moukhtar TV danañ leen ci dikkal waxtaan ceeg yéen lu yaatoo yaatu xam naa sëriñ bi dañ lay bàyyee ci kàddu yu mujj rek yu tàggoo yu dul tàggoo euh, ñu ñaan yàlla rek yàlla yóbbuñu ci gàmm gi jàmm dégg nañ appel bi ci gàmm gi kon taalibe yëpp nañ ko bokk waaj incha allah waaw mam daal alhamdulilah ñu ngi dellusiwaat leen sant bu baax a baax a baax euh, di suñu borom subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu amiin yaa li ngeen di mébé ci kër Cheikh Cheikh Saad bu yàlla nañ ci yàlla defal ndam amiin yaa rabbi amiin di xamal rek ni comme ni ma koy faral di waxee suñu mag ju baax ji daan ko wax Cheikh Mohamed Diop kere bi nga xam ni Cheikh Cheikh Saad bu Diop génn àdduna mm-hmm. euh, ca ngumba loolu moo xew suñu kër loolu xew ci kër gi dafa ne doomu soxna yi lépp lu ñuy xëccoo mm. bàyyi naa ko ak ñoom des ñaar jàng ak jàngale fa la Cheikh Taalib jaar mm-hmm. euh, kon bokk ñu li mission bi la ñu mag ji bàyyil mhm. waaw mission bi la ñu mag ji mag ji bàyyil mhm. kon boog dañuy sax ci loolu mhm. ba kër ñuy wujji mag ñi sant nañu ñëpp di sant suñu njaboot gi nga xam ni ñoo nekk ndar muy njaboot Cheikh Ahmad Diop di suñu njaboot ñu ñëpp di ñaan suñu borom yàlla tamit yàlla sàmm ñëpp yàlla aar ñoon te yiir ñu yàlla euh, yombal yoonu gàmm bi. amiin ci bëgg a ñëw yàlla na ko yàlla yombal. amiin yaa rabbi euh, a am benn gàllankoor. amiin yaa rabbi euh, ñuy tamit ñu nekk sali bi. Mhm. ñu daw ndànk. Mhm. daw at at sago. Mhm. waaw loolu itam ñu ngi koy ñu ngi koy wax. moom daal ci si gàttal daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di ñaan suñu borom subhanahu wa suñu sang bi Cheikh Talibe yal na yàlla guddal fanam amiin amiin yàlla na fi yàgg lool ci barke alxuraan dajey Seydina sallallahu alayhi wa sallam amiin yaa rabbi salaamaaleykum wa rahmatullahi ah, ngeen jëf ah, yéen yéen ni ngeen ko ni ngeen ko ni ngeen ko gisee muy ci mbir mu am solo ah, te it fa tabarakallahu dégg ngeen ndigal laa ngi noonu ak ni ko sëriñ bi diglee ak ni nga xam ne noonu la sëriñ bi bëggee bis bi ak ni nga xam ne noonu lañ ko waajee waaye tim mboolem luy njabootu kër Cheikh Ahmed Diop dëgg ngeen digal laa ngi noonu nañu maa ñun ñëpp rek bàyyi ko xel xam ne gàmm ñëw na teyit gàmm bu nu ko waxee xel yëpp dem ci ngumba waaye gis ngeen taxawaay bi nga xam ni loolu la ci njabootu Cheikh Ahmed Diop am rawatina nag kii fi nekk di xalifa bi ñu ngi sañu ñëpp ñu waajal ko bu baax waaye nag seen télévision bi di Al Moukhtar TV nii la ko fas yéene defee ba gàmmu jot incha allah ñu dem fépp rawatina kër goo xam ne këru Cheikh na Cheikh Saad Bou la fas yéene nañ faa yegg waxtaane seen wàccaay ci gàmm waaye waxtaane seen taxawaay ci gàmm waaye waxtaane itam Cheikh na Cheikh mi nga xam ni moo jël seen maam defal ko li mu ko defal ba tax ñuy woote at mu nekk ñu di ko doxal kon ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm xam naa ñàppul dañuy daal di jox nag suñu waa ji mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëjal ñu tëgal tëjal ñu ko rek ndax xam nga ni bismillah mën ngaa ñëw mën ngaa ñëw كيف ترخى روحي كالأنبياء يا سماء متى ولا أرى سماء لم يساوك في أولاك وقد خاين لسنا منك دون والسناء إنما مثل سواتك للناس كما مثل النجوم على انت يا يلا محمد أنت مصباح كل فضل فما تز در إلى عندك لدواء لك ذات العلوم من عالم الغيب هو من أهل آدم آه، آه، آه، أسماء